asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu dellu siwaat ak yéen di eh, indi benn leeral loolu tubaab di wax précision sama benn eh, xarit moo ma woo di ma xamal ni ma vidéo bi nga xam ne defoon nañ ko ci wax yi nowel yooyu feetu nowel eh, laaj na ab dollant ci wàllu leeral mm, ñun nag vidéo yi ñuy def defaluñ ko suñu bopp yéen lañ koy defal luñ ci wax itam jàpp nañ ne yéen lañ koy waxal amu ci nag lenn loo xam ni nag dañ koy yëkkati di ko teg ci suñu bakkan wala ci suñu xelum bopp damay jàpp ne fukki minute ak juróom dafay lu bariwul moo tax lu ci bari dama koy tënk ba nga xam ni aaya wala xadis léeg-léeg doo ko mun a indi sax mu xaj ci nga mën a faramfànce li nga xam ni moom ngay eh, wax waaye amu ci lenn loog loo xam ne lii danañ ko ci waxte amul daliil dalil quraaniya wala xadiis boo xam ne bii danga ci mën a euh, sukkandiku euh, li ñuy def su fekkee ne yéen lañ koy defal bu fekkee ne dem nañu ba nga xam ne loola kat mi ngi indi xel yaar ci ñenn ñi ah way xëy na loola jar na ñu indiwaat ci tuuti leeral euh, ba mu gën a leer gën ko faram donte nag bëgguma ñu aadawoo wala ñuy baaxoo saa yu ñu defee benn vidéo di ci dellu siwaat ndax la doon waajal waajal nañ ko euh, teg ko ci yoon wax ko ba pare dañuy jàll dem euh, li taxoon ñuy def vidéo bi du woon problème mu euh, Noël ci boppam problème mu Noël ci boppam ndax loolu du suñu feet loolu nattableesu ko diine chrétien itam du suñu diine loolu nattableesu ko waaye dama cee dégg ay wax yoo xam ni moo ci jib nga xam ni dégg naa koo xam ni ki dafa taxaw daal ne ñam ku ko ci joxe def nga lu xaraam euh, ku ci joxe kado def nga lu xaraam loolu man moo indi woon samay wax ci mbir mi euh, bi ma duggee ci vid euh, ci commentaire yi ci ni nga xamee ne sax baaxoo ma ko di ci seet lu bare léeg-léeg du faral di am jotug di ko xool gis naa ci koo xam ni kii sax wax ne fête Noël c'est blasphémé blasphème bi blasphème mooy teg ci deru suñu borom lu yellul loolu euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo wax euh, Isa ibnullahi ñooña ñoo blasphémé maanaam wax ne Isa yàllaa ko jur wala ñu ni euh, inna allah salisu salasatin ña wax ne yàlla ñett yàlla am yàlla leen ñetteel ñooña ñoom la seen responsabilité dugg ca loola waaye ñun ñi nga xam ni dañu am tey ji masalan benn dëkkandoo boo xam ni bii yéen a bokk benn koñ jàmm ak yiw rek dox seen diggante ngeen di dem lente ci seen xewi àddina yi séq yiw te loola moo war moo war sa dëkkandoo la moom li fekk mënulaa yóbbu ci lu xaraam mënulaa yóbbu ci diineem mënulaa def loolu safaanoog sa sa sa sa njëkk ak sa yiw bi nga xam ni moom nga xam mais kooka jàmm ak yiw a war a dox seen diggante ngeen doxalante ko waaw kooku bu fekkee ne feet gi agsi na nga ne ko bon fête wala joyeux nowel kenn du la ci bindal benn bàkkaar ku ci am dalil na ma ko indil ku ci am dalil bu wér nag ma ko indil ku fekke ñam yi nga xam ne moom lay togg bu la ca mayee nga lekk ca amul bàkkaar yàlla wax na ko ci alxuraan seen ñam ya dagan nañ ci yéen yéen seen ñam yi dagan nañ ci ñoom moom muy yahud yi ak nasaara yi nga xam ni kon bu fekkee ne dañuy dem nag ba ci yow mii nga xam ni yow yaay togg sa ñam di ko jox sa njaboot ñu ne xaraam na nañ ma wax fan la togg ñam jox sa njaboot xaraam na ñun muy occasion Noël ak muy occasion 31 décembre ak muy occasion Pâques ak lu mu mën a doon ñun suñu yoon nekkul ca loola parce que ñun jubluwuñu ca loola. te yéen nag ñi nga xam ne yéenay weddi loolu ndax mën ngeen a dugg ci xolu jaam ñëpp nag xam li ñu xalaat ak li ñu jub ñu li ci jublu sa voisin bii sa kii ngeen bokk benn bureau muy chrétien feet gi agsi nga xëy suba dajeek moom ci biir ci couloir bi joyeux Noël wala nga dajeeg moom ci bopp koñ bi joyeux Noël loola luy rafetal seen diggante la ndax moom bu sa feet jotee mu wax la ko dëgg la ñoom ñëwuñu ci ñu feet yi di ñu dimbali waaye ñu nit dimbaliwuñu leen ci seen bos amaa nag ñu partagé ak ñoom seen yëf ya ñuy lekk ak seen ya ñuy naan ak te mu dagan ci ñun loola moom dara nekku ci kenn amul foo ko mën a xaraamale ci alquran la ci sunna man li may jàpp mooy dañuy bëgg a indi lu ñuy tuddee christophobie moo bi su dee néologisme maanaam bu dee <laughs> moo bu bees maa ko créé mooy islamophobie contraire am ñu ne kat l'islam ci biir àddina am na ñoo xam ne ñi dañ koo ragale xel mooy jàpp nañ ne mi ngi tàmbalee yaatu mi ngi tàmbalee dem mi ngi am ñuy tuub ñuy dugg ci diine ji aywa kon nañu ragal lislaam ndax li mu jàngale mooy nit libre nit moom boppam nit am sañ-sañ ñu ne kon ñu nitam christophobie moo ñuy bëgg a dal christophobie moo ñuy bëgg a dal mooy foo toll rek jël mbirum chrétien def ci sa bopp diine ji nangam nangam dañuy xeex lislaam loolu lislaam ñi koy xeex ci biir lislaam la ñu nekk euh, asma ibnu euh, bintu abou bakrin yaayam bi ñuy wax Qutayla bintu abdul uzza dafa jógee euh, Makka dem Medina gane ji ko yóbbaaleel ko ay raisin maanaam daal loolu yaay di faral di yóbbu ay cuuraay ak yëfa gi yëfaat dem di ko seeti ndax namm ko fekk na booba moom abu Aboubacrine weccoon na ko lu jiitu lislaam di ñëw ba mu demee di ko seeti fekk moom asmaan mi ngi ci biir diine lislaam ca njaal beenu agsi ga nangu ko recevoir manaam nangu ko dalal nangu koo ganale mu yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko lan moo cay xalaatam yonent bi ne ko dalalal sa ndey gàttandul sa nday jëflanteel ak moom li yàlla ci diggante doom ak way juram nga xam ni kon yonent bi aaya bi nga xam ne moom la ñuy wax laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum wa lam yuxrijukum an diyarikum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim aaya bi ci waxtu woowu la wàcc yàlla terew leen ngeen di jëflante njekk ak yiw ñi nga xam ne ñii ñoom xeexuñoo ak yéen génneew ñu leen seen kër ya mais loolu alquran foofu la wàcce ma jox la beneen misaal bu simple nit koo xam ne kii masalan dafa nekkoon ci christianisme maanaam ci diiney chrétien yàlla dogal mu tuub dugg ci lislaam waaw léegi moom da ngeen a bëgg mu bàyyi ay mbokkam ya ko jur ndayee mag baayam mag ay doomam ay ay jarbaatam ak ñépp mu dagganteeg ñoom dem am na yeneen i mbokk yu bees dëgg la jullit ñi waaye ñee ñooy ay mbokkam di dereetam di léppam su dee ñooña dàquñu ko bañuñu ko wanuñu ko ginnaaw bu xew amee ci ñoom bu dee ngénte da cay dem bu dee takk da cay dem bu dee ku deele da cay dem lu ci nen bu demee na xam moom diine ji mu dugg lan la ko may ak lu mu ko mayul war na xam fu ko diine ja yamloo doo fa demee doo fa naan sàngara doo fa lekk lu ñu xaraam doo fa defit lu bokk ci la nga xam ni moo jëm ci seen diine waaye la nga xam ni moo concerné nag seen relation sociale da nga ko war a sàmm da ko war a rafetal loolu kenn mënu cee indi lu safaanoog lii nu ciy wax li nga xam ni moo am solo nag dëgg dëgg dëgg bu dee dañuy ragal ñoom ñu dem ba seen diine jeexital ci suñu bos wala loolu xeex bi li lii ñuy def nii li xeex bi mooy bu doom juddoo yar ko ci lislaam formé ko ci lislaam nan nga koy defee mooy na ko jàngal al na nga ko jàngal jikko yonent bi na nga ko won yow jikko yu ñu mën a roy yoo xam ne bii su ëllëgee fu mu mën a dem dara du ko mën a fëkk loolu moo war a doon xeex bi waaye xoolal li ngeen réew mii nga xam ni fi la ñuy waxee kenn du fi feete Noël ak nangam ak nangam nang fii li fiy xew bu leen ñu ko wax loo ñépp ci tegandoo seen bët jarul ay débat ak i guddali wax loolu tubaab di wax marronnier la marronnier mooy ci wàllu journalistique euh, at mu ne ñu dellu si di wax même wax bi même wax bi di ko répété waat loolu jaaduwul nañu clore débat bi autour de cette question coow li wax ji jeex waxu euh, célébrer Noël kenn célébrer wul en tout cas jullit ñi ñi nga xam ne ma xam moom célébré ñu Noël waaye sa mu cadeau bu dajeeg Noël xaraamul ayul kado bu ñàkk a dajeeg Noël xaraamul aayul lekk gu dajeeg Noël xaraamul aayul bu dajewul ak Noël xaraamul aayul kon foofu na coow li dakk moo gën ñun ñëpp ñu ba ñu àndandoo xam li nga xam ni moo ci amal njëriñ ñu gàttal wax ji foofa li ci des ñu teg ko ca ginnaaw te jublu si suñu bopp ak suñu njaboot loolu daal laa ne woon mënuma ko ci bañ a yokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa